jëf rëjërëjëfateedi Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni zahiran wa batinan kenn du Cheikh Ahmadou Kara Mbacké kenn du Cheikh Ahmadou Kara Mbacké ba tey ñu ànd ak ki nga xamante ne muy Fouta production <laughs> ñu ànd ak ki nga xamante ne muy Fouta production grand combat bi war a dox ci diggante Pokola Balde ak ki nga xamante ne mooy kadati Pokola Balde ak Gakou 2 mu dugg Pikine duggaat Géejawaay waaye Fouta nag muy doomi Grand Yoff dañ koy ñaanal bisam bi mu jëm nii mu jëm ci ak réussite total total waaye na combat ci biir combat combat xale combat yu neex nee naa la làmb xale te xale koy def ñu taxaw ki nga xamante ne mooy booy booy lakkal euh, caatu lakkale ak booy Grand Yoff booy Grand Yoff nuyu naa waaw maa lay fay di nuyu fu ma jógee mi Grand Yoff waaw di bëggee waa Grand Yoff yëpp ak sama gars yi ki àndal ci mel ni bégaay moom mooy gérer sa combat bi waaw di nuyu waa Grand Yoff yëpp waaw ak képp kii bëre booy Grand Yoff ayca boy la nuyu naa la. maa lay fay. di la sant Serigne Touba. di la ñaanal jaam. di bëggee ñëpp di bëggee promoteur bi di bëggee sama ménageur Assise. di bëggee wa Bawol gépp rawatina nag lakkale gi ma dëkk mu yëmbal. wa yëmbal gépp maa leen di woo si combat bi ci le 29 octobre. waaw mais lan moo la dugal ci ci waa Grand Yoff bi. waaw naa lamb la lamb ñu boole. booy Grand Yoff nga de waaw ah, yow ya, man legend lijjanti loolu. Ah. lijjanti ma la kuy dem si àll bi di mbapat daa lijjanti benn takkusaan bi. Ah. benn takkusaan nga kon yow. ah sa kawan xamal sa boobu rek say morom fi lañ taxawoon wax bu ñu demee deux jours dañoo delluwaat avancé xamal ni si àll yi ngay dugg rek man bul ma xam bu jour ba di nga comprendre yow. Serigne Bamba. mais loolu dugal ci adversaire bi yow. waaw man dama ñëw dem ba yëmbal. waaw man dama ñëw pour daan booy yëpp. Eh. booy yëpp dama leen di allah rabbi bu si yàlla àndee. yaa ngi reetaan de ki dafa neex rek ku beure dix combat beure dor ben defet la am koña 2 moma dal bu bawal ki ni munuma jaaxal te duma guddel te duma tardel barki alxuraan. doo guddel guddeel tardel le 29 di nga jaaxle rek gende may wax ak yow. jegante leen le 29 di nga jaaxle rek. ñewul ni barki Serigne Baba jegante leen yow jegesil jegesil yaangi daw de jegesil nga ne. mané ko le 29 yow di nga jaaxle. Ah. dix combat nga beure am ben defet enregistré sa deuxième defet dinaa la daan kon dama ne ki ni billaa duma jaax jaaxaluma ci dara. yow fan nga tek lolu billaa wallahi taala ñi may bëreel xooluñu kii ñi may kontaagal xooluñu kii sama yoonu lam mënoon naa doon ñeneen ñu dut ki barki sëñ Saliou. Hmm. làmb xolu moko sax sama yoon. lam waxul deug nga bëgg wax. lam waxul deug deug wala woo métti naa la daan bu ngeen ñibo ba pare soogay comprendre jàmbaare. Eh? jàmbaar wuy daw lay daan. gaynde incha allahu rabi dama lay daan. jàmbaar wuyu ko jàmbaar lan la. waaw dafa may daan. waaw. <laughs> moom instant dafa neex di wax rek. moom laa dafa neex di wax. jàkkaarloo leen. kii maa boo seeraanee suñu combat baa xam na kii man na moom lamb boole ñu sama lamb mënoon na maa jox keneen ku dul kii. lii jaaxaluma lii. ma ne fexeel bul daw rek say morom yëpp dañoo ñëwoon fii deux jours ñu daw fexeel bul daw rek saa booy grand nga xam ah, ne. man lan laa ragal ci yow. lu may tiit ci yow. laa tiit ñu ngi booy grave nga wala tiit si yow. kon yëmbal laa dëkk déggoo ma dëkk dama yeewu laa la de jàkkaaroon mbeex mi yow ma lay yeewee sa waay yow benn gulu laa lay def benn gulu billaay walaay taala kii du jàmbaar benn gulu laa lay def dama ne la kii du jàmbaar doo jàmbaar nee na français laa tubaab eh. man la tubaab bi tubaab bi tubaab laa waaw nee na moom la tubaab bi waaw jàmbaar ci biir jàmbaar yaa ngi nii eh. barki sëñ Fall yëmbal laa yeewoo booy ñu ko wax ñëpp bu arbitre bi sifflé dañoo war yi sa waay an jàmbaar. dama ne dama bëgg bu arbitre soufflé ñu samp jaaga man ak yow. Ah, jaaga. yaa ko wax de. maa la man maa la ko doon. incha allahu ni nga taxawaay nii. da eh. ni laa toll. waaw léegi yow bu jour lamb ma faral avant ma daan ba pare. Eh. booy maa la daaxal liggéey booy yamal. léegi billaa walaay talaa kii maa ko a saf mbër maa ko ëpp te bu jour ba billaa walaay talaa lii neex si lamb ji lépp maa ngi lii neex si ah, daan lii neex lépp mën nga ko def mais daan bu jotee dama lay daan force. bilaay sama ginnaaw doo ko laalal suuf. yow doo daan. ma la daan doo ma daan. incha allahu rabi yàlla baax na. yoral wax bi rek. damay wax damay jëf. saa fii ñu man dama paquetal lépp. déggoo lu ma la wax. boo wàcc ci biir ñu mayal. parce que sëñ Fallou Mbacke. boo bëggee ñu wàcc ci biir bu ñu demoon si biir ma la daanee boo xëyee rek ay raxas du dugg sama gaale di génnaat barki alxuraan ah, avance ah kon sama xel dal na ndax man dama doon dudee ndax gars yi dañuy jël sa avance deux jours ñu daw cay Fouta lu ne lañ ma jox tey Fouta lu ne moo koy taxawal waaye taxawal na combat bu neex a neex neex a neex ñaan ñi ku leen xool xam ne suñ ma wowoon sax laala ne ma am nga jox nañ la combat man jërul ma lay gis sax le jour sa moo ma intéressé ma la daan la dem ñibbi yëmbal. Hmm. loolu rek moo ma intéressé. Ari Serigne Ba moom incha allah le 29 lay kom lay leer. waaw ah. Serigne Ba ayca tànn wooteel. waaw wala caméra bi nga wooteel. di woo sama doomu bébé Seye moom moo may saal bu ma nekk ak Mouhamed Seye doomu kii lu tudd Adama Faye di woo Adama Faye. nee na kaay jàpp si combat bi Mora Cissé ak grand ak ñoom Tita Tita moom. benn xale bu jigéen bu nekk suñu koñ la ndeysaan day jàpp si booy grand bu baax a baax a baax ak grand Lamine ñoom Ama Ndiaye maay woo ñëpp seex baaxum yéen ñëpp maa leen woo ngeen jàpp si ngeen jàpp si combat bi ak sama benn doomu ndey muy wax laay laay di woo képp ki bëre képp kii kii topp booy grand rek maa ngi lay woo. ne la jàmbaar bul daw dégg nga. laay muraage xanaa daa bëggoon muraage. laay xaritu buubu la xaritu fuura promoteur. ayca jaajëf ayca caatu lakkale woote. waaw di bëggee ñëpp di bëggee képp ku ci caatu lakale di bëggee waa Bawol gépp nag na sama dëkk muy Ndorong waa Touba Toul di bëggee waa Mirina waa Mirina sar, waa Mirina sar. maa leen di bëggee bu baax a baax a baax waa Xombal waaw waa Xombal maa leen di woo ci combat bii nii yëmbal gépp nag na Paris Général maa ngi koy woo si combat yu bu baax mu jàpp Paris Général ban Paris Général men bi ne Grand Yoff waaw ñeme nga loolu daw la maa ngi koy woo bu baax a baax si combat bi <laughs> yaa may dégg di ko woo si combat bi di woo jibi maanaam sama ceddo bi mm. di woo ñëpp nag Papa Sow kii téye sama gàllaaji maa ngi woo bu baax a baax a baax yëmbal gi yëpp lakale di la wax combat bi seen combat la kii nii duma ma te du ma guddel te du ma naajal mm. barki sëñ Fall teel a dem marché rek teel a taal barki alxuraan xale nañ teel a dem marché a dem marché kii du ma tardel ah. barki yàlla du ma tardel ah. di woo nag waaw suñ chef de quartier Tafa Ndaw di ko woo bu baax mu jàpp si combat bi comme si naan ni mu si daan jàppee bu baax a baax a baax rawatina suñu maire Bawal Amath Dieng ñu ngi lay woo bu baax a baax Babacar Ndaw maire yëmbal ñu ngi lay woo si combat bu baax kii barke sëñ Fallou Mbacke laa la waasal. waaw yéen yéen ba lay rab maan ngeen da ngeen di taasu rek. <laughs> ñu lii min si nañ ko si yéen yéen taasukat ngeen. Ah. waaye le 29. waaw le 29 bu soobee yàlla naa toog ci biiram. Ah. te bu ma toogee si biiram fekk fekk photo wuñ du ma wàcc. dama koy photo nee na le 29 dina xool kan mooy toog ci biiram. ayca jërëjëf le 29. Pokola ak Gakou ñu ànd Fouta Production kenn du moom ayca Idi su baaxee ñu dem jërëjëf